waaye aussi nag di yëngatu ci lu wàju ci wàllum euh, euh, technologie mbay li ñuy wax maanaam mbaalum jokkoo yi ak euh, mhm. waaw mooy réseaux sociaux mhm. ah d'accord ak yeneen ci jëm ci wàllu woowu muy wàllum technologie ah alors tey ñu dalal ko fi pour waxtaan lu wàju ci wàllum li li ñuy tuddee Civitech donc déjà ñu nuyu la bu baax Alex maa ngi lay maa ngi lay fay maa ngi nuyu plateau bi yëpp mhm. alors ah, donc déjà une question qui vient automatiquement moom mooy alors le le terme Civitech étymologiquement parlant boo ñu doon andil c'est c'est quoi en réalité qu'est-ce que ça contient. alors civic tech li ñu mën a comprendre ci civic tech c'est très simple so jëlee mot bi rek ci composition bi. soo ko xoolee rek tu peux à peu près imaginer lan mooy définition bi. c'est les technologies au service de la citoyenneté. d'accord. à la base loolu mooy loolu mooy civic tek parce que xarala yu yees yi les technologies elles ont aidé énormément de secteurs soo jëlee par exemple ci wàllum santé soo mhm. utiliser technologie mun nañ ko oowee la medtech ou la médecine technologie soo jëlee ci wàllum finance ñu ngi koy oowee la fintech soo jëlee ci wàllum lépp loo xamante ne mooy et suqali démocratie renforcer citoyenneté loolu la ñuy la civic tech. d' accord alors donc déjà euh, euh, euh, est ce que entre bi ngeen commencé di véhiculer entre le, le le terme là ou bien di am pour di jaay donc idéologie bi nii gis ngeen ne que le Sénégalais est en train de répondre à ça est ce que am na feedback par rapport à ce que vous êtes en train de faire. alors fii ci Sénégal initiative civic tech xaw na fi yàgg tuuti. Mhm. parce que civic tech nekkul loo xamante ne. ça date de plus de quinze ans wala vingt ans. Mhm. ça a commencé en Afrique à peu près au Kenya ak mhm. benn initiative bu ñu tuddee Ushahidi mhm. à partir de 2007 fii ci Sénégal l'une des premières initiatives civiques tech bi amoon c'était entre 2011 et 2012. mu ngi xew ci benn contexte bu particulier on était en période électorale et groupe euh, d'activistes et de blogueurs lancé benn plateforme bu ñu tuddee woon jamono boobu suñu 2012 foofu la civique tàmbalee fii ci Sénégal après en temps il y a eu énormément d'autres d'autres initiatives hmm. d'accord je pense Sénégal vote ci si si euh, action yi Civic Tech euh, doon mënee ci la bokkoon waaw Sénégal vote par exemple euh, plateforme Civic Tech la boo xamante ni li ko tax a jóg mooy def le monitoring digital hmm. du processus électoral jaarale ko nag ci ay ay ay plateforme ay hmm. application ak ay site web yoo xamante ni dina tax citoyen bi élection su jotee dina mun a jot xibaar boo xamante ni dina ko gindi hmm. ci wàllum voté mais dina mun a jot tamit des résultats à temps hmm. je pense que Sénégal vote yéen ñëpp surtout les euh, médias euh, gis nañ liggéey bi bi gars yi doon def de telle sorte que moo nekkoon sax l'une des principales sources d'information ci wàllum résultat mhm. de la plupart des médias parce que def monitoring résultat mhm. élection dafa laaj euh, ay xam-xam dafa laaj tamit ay moyens yu bëri parce que on a énormément de bureaux de vote mhm. mais grâce à la technologie loolu yëpp mun nañ ko simplifier ci ay logiciels ci ay plateformes. Mhm. d'accord présentement alors est-ce que vous avez un répondant euh, par rapport ak le législateur présentement ñoom euh, euh, qu'est-ce qu'il vous apporte comme comme soutien le législateur su ma ko waxee moom mooy exemple donc jëwriñ yi yor wàllum technologie ak yenn ci ay bureaux yenn ci ay agences est-ce que vous avez des répondants par rapport ak ñoom. daanaka parce que soxlawuñ ñu répondant xam nga mm-hmm. la technologie elle est souveraine en fait mm-hmm. soo maîtriser benn technologie nga am benn groupe pour dérouler sa projet mm-hmm. t'as presque pas besoin de de de répondant l'essentiel mooy ni ngeen am ci seen groupe ñoo xamante ne am nañ xam-xam de telle sorte que doo leen enfreindre la loi par exemple ñun jot nañ liggéey pendant quatre ans ci mbirum processus électoral mais ci suñu group amoon nañ ay juristes amoon nañ ay euh, et de la loi électorale yoo xamante ni il nous évitait de naviguer si fa yu ci fa yu code électoral pour yoon ba ñu teg daan ci ñu kaw d'accord alors donc euh, puisque euh, noonu la demee alors seen ay seen ay fonds d'où est-ce que vous parce que yaa yow bu ñu jëlee exemple au Sénégal vote alors euh, euh, liggéey bi ci nekk autour de tout cela donc ça demande des moins ça demande donc à la fois financière logistique ak les moins humains yéen ñu koy def au moins am na donc dërëm buy tegu ci seen loxo fan di jëlee moyen pour mën a alors euh, jëm liggéey ci wàllu woowu. du ma ko yemale rek ci ci ci Sénégal vote parce que man kese bokk moo ci. Mhm. ci Sénégal vote donc mhm. j'ai pa la prétention de parler ci turu projet mhm. boobu rek mais de façon générale. les projets civiques teg en Afrique francophone. mooy euh, dañoo am problème mu business model maanaam dañoo am problème mu eh, dund ci seen liggéey. li ko eh, lan moo c'est tout simplement parce que. yeggaguñu ci yenn maturité démocratique yeggaguñu tamit ci benn offre de service yoo xamante ni les porteurs de projet ci seen bopp mhm. def nañ ko mhm. donc c'est des projets yoo xamante ni eh, c'est des projets yoo xamante ne dañ koy proposer ay bailleurs ñu koy ñu koy euh, ñu koy financer mhm. loolu tax na sax mooy la plupart des projets civiques tech c'est des projets plus ou moins événementiels en Afrique francophone. D'accord. généralement période élection suy jot dangay ngay gis ay groupe de personnes lancer et initiative loolu tamit ça fait partie des limites ci loo xamante ne peut-être euh, mun nañ ko gis mun nañ ko seetlu ci projet ci projet Civic Tech mu nekk Sénégal Guinée wala wala feneen mais généralement dafa am ay bailleurs ay fondations internationales yoo xamante ne. ñoom ñooy financé ce genre de projet. Mhm. d' donc euh, mais mais am na am am na un peu donc quelque chose qui loo xamee ne que peut être du ma ko xaw di comprendre un peu genre euh, bon boo bu fekkee ne que ci sa biir discours yaa ngi wax ne que soxlawu leen pratiquement répondant euh, et vous avez certainement besoin donc de sous de de sous donc yoo xamee ne moom nga ni defee déroulement. en fait bon su ma waxee répondant par rapport ak le législateur donc ci biir dëkk bi est ce que présentement jotul ñu dépasser étape bu. événementiel. pour oui, mën a naturellement parce que démocratie soo koy xoolee du rek élection kese. exactement waruñu ko tënk ci ci ci démocratie. Mhm. démocratie c'est un exercice au quotidien. Mhm. maanaam pratique la bu ñu war a def chaque jour. exact mais soo xoolee suñu dëkk bi à quel moment on convoque le fait démocratique élection la. élection oui. yenn opposants yi à quel moment on les on les donne le droit de parler dans un média public. élection la ah c'est exact ñun suñu bopp ci suñu conception de la démocratie mhm. dañ ko dañ ko yemale ci le fait électoral man personnellement je milite pour que ñu am ay initiative civique teg yoo xamante ne dina dina permettre nit ñi ñu mën a comprendre seen budget gox naka lay fonctionner mhm. mais loolu yëpp il nous faut benn arsenal législatif boo xamante ne ça sera important maanaam maanaam en 2022 may wax ak yow au Sénégal on n'a pas une loi d'accès à l'information man je suis journaliste. Mhm. Pape il est journaliste. Mhm. tey su bëggee def benn enquête sur euh, les axes routiers les plus accidentogènes mu mhm. dem euh, direction générale de la police wala mu dem gis euh, le corps des sapeurs pompiers pour mu am base de données. mais il va galérer du ko am. parce que amul loi boo xamante ne. daf koy permettre mu am loolu. alors que dans les pays yoo xamante ne civic tech dafa am doole bu baax. c'est de pays yoo xamante ne citoyen bi dafa am droit à à l'accès à l'information. administrateur bi presque devoir la ci moom citoyen bi su ko laajee benn benn information mu hmm. jox ko su contrainte du du d'une peine wala d'une amende. d'accord c'est-à-dire kon le préalable moom mooy déjà ñu ñu ñu ñu tëggaat naka la ñu war a mën. dem ba am arsenal législatif. d'accord après ñu doog a wax ci wàllu fonds yi. les fonds moi je pense que facultatif là quoi hmm. c'est vraiment facultatif hmm. et si on arrive à avoir benn dispositif législatif bu am doole je pense que les porteurs de projet dinañ liggéey de telle sorte que ñoom ci seen bopp ils pourront eux-mêmes autofinancer seen propre projet ba pare day am day am euh, revenu pourquoi est-ce que ma insister ci wàll woowu parce que donc ñu Sénégal dañu am euh, maanaam ministère boo xamee ne dañuy yëngatu ci dañuy yor lu aju ci wàllum euh, télécommunication technologie yu demee noonu c'est-à-dire c'est c'est ñoom aussi ñu am pour di liggéey wala boog di poser des actes yu nga xamee ne que alors dina dina protéger à la fois le Sénégalais xam naka la ñuy utiliser donc lu aju ci wàllum internet rawatina réseaux sociaux yu demee noonu def selon selon selon leur degré de compétence ñu ngi koy def ce question bi dafa am solo parce que ñu bëri dañuy def euh, nuance entre civic tech ak gov tech bokkul civic tech c'est quand la la solution numérique projet bi est l'élément de citoyen d'accord pour dem ci décideur bi hmm. la GovTech c'est quand le décideur ci boppam administration bi décider jël mettre en place ay plateformes pour faciliter la compréhension d'un fait public mm -hmm. à la population d'accord donc c'est c'est c'est deux notions yoo xamante ne bokkuñu ñun dañuy liggéey ci wàllum civic tech mm-hmm. nous on n'est pas des administrateurs amuñu mandat on est des citoyens sénégalais lambda mm événement su jotee ñu bëgg citoyens yi participer à l'action publique ñu teg ay dispositifs jarale ko ci ay plateforme digitale pour citoyens yi mën a participer d'accord genre bon c'est c'est assez problématique tey su fekkee ne que on n'a pas véritablement donc euh, euh, sinon ni ko expliqué nii noon noon noonu la demee parce que euh, li ñuy faral di gën di gis jamono ji bon même si dëkk yu mag yi alors li ñuy gën di gis moom mooy que les initiatives par donc euh, alors euh, euh, viennent de la base c'est-à-dire ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci ñooy citoyens ñoom ñu jël ay initiative yéegal ko ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy législateur bi et comme ça ça devient un peu plus fluide parce jëm di jox mbir ñoom ñu jëlal ko seen bopp moom mooy mooy gën a mooy gën a oyof quoi. démocratie bu bu dëggu. Mm. il faut que population yi am exigence. Mm-hmm. exigence boobu ñun loolu la ñuy véhiculer ci suñu projet. Mm-hmm. tey par exemple lan mooy xew ci dëkk bi c'est les activités parlementaires. exactement soo xoolee en Amérique latine. Mm-hmm. seen fort ci wàllum démocratie mooy ils ont des parlements qui sont ouverts. un simple un simple habitant habitant de de l'Argentine wala de l'Uruguay damay jox exemple ñaari dëkk. Mhm. E, Amérique latine ñoom mun nañ xam suñu duggee seen téléphone e, seen ban député moo bokk ci ban région. Mhm. ban député moo posé question écrite wala question orale. d'accord loolu c'est le monitoring de l'activité parlementaire. Mhm. par exemple ñeen si plateau bi su ma leen laajoon. E, treizième législature. ñaata projet de loi lañ fa voté beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. c'est vrai et pourtant ils sont censés travailler pour les Sénégalais. pour les Sénégalais moo tax même au niveau du parlement de l'Assemblée nationale il est temps ni am ay députés 2.0 yoo ils seront ouverts aux Sénégalais nit ñi mën leen poser ay questions à travers des petites plateformes de discussion en ligne remonter jafe-jafe askan bi di jànkuwanteel ci gox yu sori ñoom ñu mën ko partager eh, ci seen i session plénière wala ci seen i session restreinte. Mm-hmm. technologie mun na mun na nekk benn benn avancée. Mhm. bu bu bu bu am solo ci wàllum démocratie mais pourvu que ñu comprendre ko noonu. pourvu que ñu comprendre ko bon à défaut sama gars yi bu ñu amul. sànq maa ngi dégg mun naa ne il faut que askan wi am exigence est-ce que exigence boobu noonu ngay wax tey jii boo koy xayma ci Sénégal euh, mi ngi fi bu baax walla des na. oui exigence bi mu ngi fii te technologie am na lu bëri lu mu si dox. Mhm. suñu première alternance parfois suñuy analyser notre première alternance en 2000. en en l'an 2000 gars yi dañuy fàtte cet aspect là. dafa am avancée technologique bu am solo moo qui a facilité l'alternance en 2000 c'était quoi. Mm. l'avènement du téléphone cellulaire. d'accord. le fait que Sud FM am ay réseaux de correspondants ñu jox leen jumtuwaay boobu. Mm. ça a permis à 18 heures à la fermi fermeture des bureaux de vote. Mm. rapidement ñu mën a oote joxe information boobu. donc à chaque fois suñu amee avancée technologique des am imputation ci suñu avancées démocratiques. d'accord il faut ñu comprendre ko noonu. Mhm. super communication itam mi ngi jàll bu baax pour que au moins askan wi di xam nan lañu wax a def ak ban taxawaay la ñu war a ba nga xamante ni plateforme yi dina mën a dox bu baax. bon ñun par exemple dans le cadre de de notre projet Sénégal Vote amuñu problème mu communication parce que dañ ko lancé sukkandiku ci médias sociaux yi mooy ay Facebook ay Twitter ay Instagram am nañ foo ay communauté bu am doole. Mhm. je pense que yéen ñëpp gis ngeen en période de d' mhm. si ñu commencé publier les visuels des résultat mhm. parce que de wër àdduna bi. exactement donc côté côté communication amuñu problème boobu peut-être côté appropriation. par la population. loolu xaw na des. te loolu tamit ça se comprend parce que technologie. xaw na technique tuuti te ñu bëri jànguñu tamit Sénégal. boobu noonu sur l' accès à l' information c' est un combat vraiment qui mérite d' être d' être d' être d' être moom war nañ ci taxaw bu baax a baax quoi parce que d' léegi dama am beneen aspect boo xamee nag je pense dina am importance ñu ñu andi ko est ce que yéen ñi nga xamee ne que en fait yàlla def na ne yéen am ngeen tuuti xarañte ci wàllum technologie et encore tout à l'heure que ne technologie c' est assez technique quoi vous m' excusez donc la répétition ce que en fait du yoon présentement ngeen am pour def alors euh, ay proposition yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy alors ministère yi yëngu ci wàll bi juste pour teg exemple yaa ngi wax ci wàllu plénière bi présentement donc bientôt je pense que euh, je sais pas jeex na su ma jiw su ma la alors est-ce que du woon yoon exemple ngeen def ay euh, proposition proposition loolu ñu ngi siy liggéey bu baax ci wàllu assemblée nationale ñu ngi si liggéey man personnellement en tant que mentor maa ngi gunge ay ndaw yoo xamante ne tëgg nañ ay projet yoo xamante ne dañ koy jëmale point parlement ouvert au Sénégal mm-hmm. loolu ñu ngi koy def ñu ngi jéem a ut ay financement pour financer projet yooyu pour mën a am le jour le le jour mais li ëpp solo mooy il faut que les députés ñoom ci seen bopp mm-hmm. gëm loolu ne ils doivent s'ouvrir mm-hmm. ci yeneen dëkk yi dañuy am ay assistants parlementaires dañuy am ay bureau yoo xamante ne askan wi mun na leen seet si tey benn député su ubbee benn application wala benn site boo xamante ne tous les sénégalais peuvent l'écrire moo gën a yomb. Mm-hmm. en matière de coût moo gën a yomb. Mm-hmm. du fay luwaas. du am du am ay quatre quatre yu jël ay centaines de millions voilà et cetera. <laughs> voilà dina mun a dina mun a xam. Mm-hmm. aspiration yi bëgg-bëgg sénégalais yi mu mën ko remonter. allez-y Mbaye solo la. li ma ci jaaxal rek mooy njub googu nga xamante ni ak leeral googu nga xamante ni war nañ mën a am ci. ci ci ñooñu ndax loolu nekkagum na ci suñu ay jikko ak suñuy doxalin loolu loolu loolu moo ma ci jaaxal mais ci loolu euh, macha allah ngeen di liggéey liggéey boobu solo. Mm-hmm. liggéey boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu gën a law. Mm-hmm. ndax euh, le Serigne Cheikh waxoon rek moo ci nekk nuru sa jamono moo gën nuru sa bàyyi. Mm-hmm. te danoo toll ci jamono joo xam ne jamono technologie. ci lañ toll. nga xamante euh, lépp lu. lu baax ak luy doxal réew ak lu koy jëmale ca kanam euh, foofu lay mujje mm-hmm. bu yóbboo ñëpp waajal ko euh, ndax euh, démb rek yaakaar naa maa ngi seetaan benn vidéo ci ay tubaab ñuy waxtaan ne fii ak deux mille vingt six xaw jàpp côté yooyu dinañ dem ba. dañuy am monnaie monnaie électronique. waaw <laughs> ah, électronique mooy mooy. Ah, tàmbali di dox waaw mm-hmm. xam nga yooyu yëpp nga gis ne. ci wàllu technologie la jëm nga gis na yooyu ku yebu rek waajal ci sa bopp bu baax kon boo leen nekkee ci loolu lu am solo la euh, li ma la ci bëggoon laaj rek mooy ndax nii ngeen ci nekkee nii jamono ji di ci yëngatu ndax yéen a ngi ci am dara loo leen ciy gañe wala ndax bénévolat ngeen ci demee wala ndax yéen a ciy waajal loo xamante nii di ngeen ci taxawal créé ci loo xamante ni di ngeen ci mën a jël yeneen ndaw ñu ciy liggéey di ci am di ci mos dara waaw sa question bi am na sa laaj bi am na solo trop Eh, ndax am nañ ci dara loolu mooy business model bi. Mhm. bon waaw ñu ngi si ñu ngi si am dara parce que man mi ça fait fukki ak mhm. dix ans boo xamante ne man si liggéey su fekkee ne. man à la base journaliste la woon j'étais journaliste dama dama ci ci ci bàyyi journaliste ci rédaction yi voilà dem dem liggéey ci ci bureau de projet yi donc ma si gis sama bopp mais au delà au delà am si dara bi passion bi la. parce que benn benn benn combat la benn engagement la mm-hmm. boo xamante ni loolu moo ñu moo ñuy animé. mais ku def benn dix ans ci benn. secteur par force da ngay da ngay avancé da ngay am ay yeneen xeetu connexion. Mm-hmm. loolu mm-hmm. mooy aspect bénéfice. bon peut une dernière question parce que temps bi xoj nañu déjà euh, moom mooy déjà. éducation bi nga xamee moom moo war a am ci wàll wi ci ci ci euh, wàllu utilisation technologie internet xam nga réseaux sociaux donc de manière un peu plus par parcellaire euh, ñun naka la ñu war a def est-ce que c'est exclusivement du ressort de du gouverneur ou bien yéen ñi nga xam ne vous êtes des des simples donc ah, vous avez quelque chose à proposer par rapport parce que dérive yi di xew sur sur sur internet bari na au point que am na ci ay nit ñu nga xamee ne que seen àdduna daf ci daf ciy yàqu. <laughs> peut-être sax ñàkk a jàng la wala ñàkk maitriser maîtriser outil bi yu demee noonu. en fait qu'est-ce qu'il faut pour être un peu plus en sécurité. sa question bi dafa xóot. torop uh-huh. je pense pas que ñu mën si loolu kese débat ko quoi <laughs> mais li ma si mën a wax mooy gis nga mbirum médias sociaux uh-huh. mbirum géopolitique la uh-huh. géopolitique c'est c'est c'est beaucoup plus vaste ak euh, anam buñ koy appréhender ñun su suñu ay réalité dafa am loo xamante ni moom la ñuy oowee économie de l'attention ay plateformes comme Facebook Instagram ay WhatsApp li tax ñuy am xaalis mm. mooy c'est parce que ñun on passe énormément de temps ci seen plateforme loolu la ñu oowee économie de l'attention d'accord plus tu passes du temps sur Facebook plus tu consommes de la vidéo plus ñoom ñuy am xaalis et à chaque fois que ñoom ñuy def ay mise à jour ci seen algorithme ci seen plateforme ils font tout pour que ñun en tant que consommateur ñu gën a yàgg ci seen plateforme yi moo tax chaque fois tu vois benn application judo WhatsApp su defee quatre cinq ans nga gis TikTok fële fële. Mhm. c'est c'est le monde qui est comme ça. Mhm. léegi ñun mhm. suñu législateurs yi nos dirigeants ñoom ils doivent comprendre que c'est un couteau à double tranchant. xëy na am na bénéfique pour ñenn ci askan wi mais lu muy yàq. dafa commencer bëri. il faut ñoom ñu teg ay barrières.